wax joo xamante ni bi wérul tegul fenn fi ñu tàmbalee mooy xamle ni sëñ Mor Anta buñ ko doon tënk amul woon jotu jàngal ak njabootam wala mu yar leen ndax en tant que chef de famille chef de clan xaadi amul woon jot gi daal ba pare njàngale mi mu di ko séddaleeg sëj beeg ay rakkam borom daaru muuti maam Cheikh Anta te kenn ku nekk xam na ni borom daaru muuti sëriñ Tuubaa ko jàngal mu wax ni sëriñ bi tam déplacement yi waajuram daan déplacement yu bari di tukki dem fee dem fee taxoon na ak ndawam daal di ndaw gu metti sëñ Mor Anta Sali leen a jàngal ndax chef de clan la chef de famille la xaadi la loolu jeexitaloon na ci sëriñ bi ba tax sëriñ bi dem gànnaar doon fa jàng ngir bëgg gën a dégg arab loolu di wax joo xamante ni teguwul fenn ndax dama jàpp ni ay sénégalais buñ dee bind sunu mboor ab tubaab di l'administrateur de Diourbel le celui entre 1913 1915 def seede ci Serigne Touba li ci wax ni mooy nit ku ñuul wala wolof wala sénégalais bi nga xamante ni musta génn Sénégal jàngi fenn arab te moo gën a dégg arab yi arab yow nga dib sénégalais wax ni Serigne Touba bi mu sëñ Mor Anta Sali dafa am lu manqué woon ci njàngam ba mu dem gànnaar di fa jàngi ngir dégg arab ma ni wax jooju teguwul fenn. waroon nañu wax seeni source fan lañ ko jëlee loola fañ ko jëlee lañ ñu war a wax loolu ak tooñ la sëñ Mor Anta ak njabootam amu ca kenn kuñ naan acam la mu def ak ñoom tey boo waññee ko wax ni amul woonu jot ndax ay fonction ba njàngum njabootam sooxe woon ba Sëriñ Tuubaa dem gànnaar di fa jàngi ngir dégg arab te ab tubaab bu xonq coy bind wax ni Sëriñ Tuubaa mooy nit ku ñuul ki gën a dégg arab yi arab te musta génn Sénégal yow nga ni génn na senegal ngir jàngi arab sëñ bi loolu teguwul fenn yoon wi sëriñ bi demoon bi sëñ Mor Anta Sali làqoo am na asoona bu fi defoon ay wax ju ñaaw ci sëriñ bi en 1982 am ku ko génnewaatoon def ko ci internet bi ba ma cay àddu nee naa leen tukkib sëriñ boobu mu defoon gannaaw waajuram sëñ Mor Anta Sali jiitu muy woote yoonu murit sëriñ Moussa Ka nettali nañu ko sëñ mu Ka nee na boo xalamee at ma sëriñ Touba demee te kenn xamul fum jëm ci réew mi ngir moo ñime ngir tàgguwul kenn ku dul maam Thierno te moom du feeñal mbóot li tax mu raw na Cheikh Bamba dox Jolof di wéy ba waalo ñu naa ko doomi doomi astawaalo ca biir way wa ma ngay wax ni sëriñ bu soobee moo bindub leetar yónnee ko Cheikh Sidiya moo am tiitar leetar ba dem fekku fa Cheikhi Bamba Mbàkkeeg bi ñoom ñëpp di bëmb di coow amuk jaaxle ndax sëriñ bi bi muy dem borom Daaru Muti la tàggoo te moom du wax secret nijaayam bind Cheikh Sidiya di ko laaj ndax sëñ baa nga fa leetar ba fekk ko fa ba ñu am ci njàqare kon diggante boobu nan la fa sëriñ bi demee di fa jàng arab ci tukki boo xamante ni bii daf doon wër tukki boobu ci la gisante woon ak euh, El Hadji si Sy ci gàmmu cele nga taxaw yow wax ni dafa demoon ngir jàngi arab waaye la ca gën a tee doy waar gën cee garaw nga wax ni foofee la tudde boppam xaadimu rasul kon daal xaadimu rasul tur la woo xamante ni Sëriñ Tuubaa moo jékki-jékki rek tudde ko boppam tur la woo xamante ni bii amul valeur gànnaar la ko tudde boppam loolu yi nag laa bëgg mu leer ñépp xam ni loolu ñu wax amut ndax tey ab iranien ab saoudien ak ku man di doon tey nga ñëwoon ni da ngay gëstu si ci Serigne Touba ñu ni la histoire su senegal bind nañu ci moom nga dem jël loole yóbbu ko wax ni sëriñ Touba ginnaaw sëñ Mor Anta Sali la demoon gànnaar ngir jàngi arab mais lu gën a doon erreur loolu amut kon lii ñu génne ngi mooy mboorum Sénégal booye boo ñu récupéré waat lépp gas ko suul te bindaat ko dañ ko waroon a waajal te it lii may wax yeneen kër këri diine yëkkati nañu ay kàddu ngir lañu leen waxal loola nekkul man nag kenn digaluma ma wax waaye ni ma koy waxee rek man dama allergie ci gis ñu wax ci sëriñ bi lu dul noonu te dindiwuma ko ak koo man di doon nag am murid laa dama signé ak sëriñ bi un contrat indéterminé bu yoonu mu ret def société ab actionnaire laa ci ci la bokk looloo tax may wax waaye duma kilifa duma ko kàddoom euh, euh, euh, joti fenn waaye nag ndagam damay jéem a nab na bi ci mboor bu ma gisee ñu bind ci sëñ bi loo xamante ni bii nekkul il faut ma dénoncer ko il faut ma wax ni nekkul lii ma leen wax tey ku ñëw di gëstu ci Serigne Touba jàpp ci lii ñu bind ci ni mooy mboorum Sénégal nga jël ko ni histoire Sénégal vrai ngi ni mooy histoire bi gën a faux loolu laa wax ak ñi ko doon bind teguñu ko fenn li ñu bind ci sëñ bi fuñ ko solo ku leen ko jox ku leen ko wax suñu demee ba dafa mel ni dañu am intention de nuisance bu ñu am ndax ku ni da ngay réécrire da ngay bindaat mboor kenn ku nekk xam ni sëriñ bi le 10 août 1895 la génne Mbàkke Bari dem Saint-Louis ñu convoqué conseil privé le 5 septembre 1895 sëñ Moussa Ka wax ni keroog la taalif xasida xasiiru ca mooma at la am sëriñ Basiiru yow nga ni sëñ Basiiru 1896 la feeñ te bi muy feeñ sëñ baa ngi nar kon sëñ bi demul ci géej gi 1895 1896 la dem ci géej gi te sàmbalaw bi penn buur ba Jolof le 2 janvier 1896 la ko gouverneur général Chaudié mi nga xamante ni dañ ko nommé woon gouverneur général nommé Euh, euh, euh, mute gouverneur du Sénégal Chaudié rejoindrewul postam mu assuré intérim doon gouverneur général gouverneur Sénégal ba tax mu convoqué convoqué woon conseil privé ba ci le 5 septembre 1895 le 25 septembre ñeenti fan gannaaw bu sëñ bi ci bàyyi ko Ndakaaru jëm Gabon ki la gouverneur général Chaudié ñëw loolu moo tax le 2 janvier 1896 mu convoqué mu convoqué conseil privé ba ngir àtte Samba Laobé Penn bi nga xamante ni ak jébbaloom ci Serigne Touba moo leen metti woon ba tax ñu bind lettre boobu ñu complot woon ak Mame Abdou ngir yóbbu ko Gabon kon ku ni sëñ Basirou 96 la feeñ bu doon faute de frappe xanaa relire nañu bu ñu bindee ba pare bala ngay móol xanaa dañ ko jàngaat ak ñàkk xam la gis naa ci borom Daaru Muxti page bu ñu ma yónnee la ñu bind ca moom date de naissance wax xamuñu ko trois point d'interrogation la ñu def def 1943 muy at mi mu wàccub liggéey lan la ñu bind ci moom ni sëriñ bi bi muy dem euh, deuxième exil bi euh, euh, gànnaar en 1903 lettre bi mu bindoon ni ku bëgg jàng boole jàng ak liggéey demal ci Thierno ku bëgg di jàng te doo liggéey demal ci maam Cheikh Anta ku bëgg a boole liggéey ak jàng demal maanaam loola la ñu ca bind. loolu laa xamul bu fekkee dañoo bëgg a xam le borom daaru muuti bind yi ci moom xanaa borom daaru muuti am na fu fu mu feeñee am na fu mu jaar ba egsi foofu kon précipitation tax ñu doon ko bind walla dañuy saboté saboté sax laa ko teg waaye yoonu sëriñ Touba yi mënee su ko saboté waaye li ngeen bind lu garaaw a garaaw a garaaw la de Serigne Touba dafa demoon gànnaar ngir parfaire làkku arabam jàngi arab mais bi loolu yéen ñu ko bind tegu leen ko fenn tegu leen ko fenn te loola mooy li ma ci gis peut-être am na yeneen yu nekk ca biir yoo xamante ni bii page yi ñu ma yónnee nekku ca mu am beneen remarque bu ma ci def sëriñ ba Basiiru su ngeen di wax am njàngam booba tout tànk la waaye bu ñu demee tey ba ak njabootam toog toogaayu sëriñ Touba ngeen war koo màggal waaye bu ngeen demee ba bind le le jeune Bachir mais sëñ bi te tubaab yi ngeen di roy tubaab yi ku ci masa am croix légion d'honneur wala titre boo masa am sooy bind say lekk sax danga ko cee def ngir yàlla kon nee leen sëriñ Basiru wàccuwaay bi ko sunu borom jox ngeen jox ko ko waaye bu ngeen naan te du ngeen yi tubaab bu tubaab doon bind ci moom tey nii le jeune Bachir ñu mën a xam waaye ay sénégalais ngeen kon te am na sax ku ma wax gisuma ko dama ciy bañ a àddu ndax gisuma ko waaye am na ku ma wax ni am na foofu le le jeune Bamba lañ fa bind fu ñu bindee le jeune Bamba nag war faa mën a bind le jeune Bachir waaye tegu leen ko fenn de ndax ay sénégalais ngeen da ngeen di màggal ku ci tudd njiitum réew wala dara ñu ne la ràpp ci kaso bi atteinte euh, euh, euh, à chef de l'État kenn ku ciy tudd ab député da nga naan honorable boo di tudd président ni son excellence alors dem di coof Serigne Bassirou naan le sëñ Bachir le jeune Bachir mais loolu tegu leen ko fenn te ay senegale ngeen kon seen lii ngeen bind bu dee dangeen ngeen doon leeral na leen wóor ni da ngeen a lëndëmal ñeneen ñi de wóoruma waaye Sëriñ Tuubaa moom lii ngeen bind ci moom booye ba ngeen far ko ba mu set wecc Sëriñ Tuubaa musta jàngi gànnaar nee naa leen ndagam tubaab yi ñoo seere ni mooy nit ku ñuul ku gën a dégg arab ñi nàmp arab te loolu sëñ Moussa ko wax na ko ko moo raw ñu nampoon ci lisaanul arabi la sëñ Moussa Ka wax sëriñ Tuuba gën a dégg arab ñen ñi juddu woon namp meewum arab sëñ Tuuba leen gën a dégg arab kon ak dégg arab ba mu leen neexul ba ngeen wax ni Mauritanie la demoon ngir dégg arab ci tukki boo xamante ni bii sëñ bi tukki ba ndax mat na ay weer tukki bu matul at nan la fa sëñ Tuuba demee di fa jàng arab ma ni xoolaat leen li ngeen def lii ngeen bind day teguwul fenn te te te li ñu mën a def ci combattre que danañ ko combattre pour que ngeen indi dëgg gi yàkkamti gi jaru ko fi lii ma leen wax lii ngeen bind képp ku ñëw doon gëstu ci Serigne Touba gis ko da koy jël yóbbu defe nii lu dëggu la te fekk na loolu amut kon tooñ ngeen sëñ Mor Anta Sali mi ngeen di dóoral ci ni ay fonction taxoon na talul woon ak njabootam ba seenum njàng sooxee ba tax sëriñ bi dem gànnaar di jàngi ma ne loolu tegu leen ko fenn yéen ko tey ndax kërug diine gum ci mën a doon ba ngeen ca bindee ba noppi lu jiitu ngeen koy mool yóbbu leen ko ci kilifa ni ko nun ko lii ak lii ak lañ ci bind danoo bëgg ngeen yër ko ba xam ndax lii aw na yoon wala amul yoon ñu doog koo mool waaye defu leen ko précipité di fu ne ngeen di publicité cinq tomes yi génn te cinq tomes yi ay erreur dong la lii daal dans un premier temps lii laa ci gisagul mooy li ngeen wax ni sëñ Mor Anta Sali dafa sàggane woon ak njabootam ndax ay fonction ba seenum njàng sooxe ba tax sëriñ bi dem gànnaar di jàngi te loolu teguwul fenn di wax joo xamante ni bii wérut sëriñ Tuubaa moo tuddee boppam xaadimu rasul ca gànnaar wérut sëriñ Basiru mi ngeen ni 96 la feeñ wérut sëriñ Tuubaa mi ngeen ni mais loolu yéen ko tey sëriñ Basiru quinze bi muy feeñ fekk na way juróom ndar te 1895 fekk sëriñ bi Mayumba mais loolu tegu leen ko fenn kon lii laa indi woon ngir wax ni li ma jotagu a yër ci li ngeen bind awma livre yi maa ngi nii Paris dañ ma yónnee ay page yu ñu yu ñu def capture d'écran yónnee ma ko waaye li ngeen ci bind dara weeru ci kon nag maa ngi jéggalu bokk yi te di leen xamal ni leneen lu dëng lu ma ci gis danaa dellu siwaat ndax du ma nungu kenn di duural sëñ Tuba sëriñ Tuba ku dib sénégalais mu war a doon fierté ci yow nga ni gànnaar la demoon ngir jàngi dégg dégg arab mais sëñ bi da ngay saboté loolu nga wax tegul fenn xaadimu rasul turam wii ku mu metti wala nga iñaane ko ko ba ni moo ko tudde boppam te booba sosagul yoonu murit wi te nga dégg sëñ Abdou Lahad Mbacke wax ni Ahmadou Sall muñ ko tuddee woon sëñ bi daana ko bind daana ko wax daa ko bind waaye ba mu demee ba jot garaatub xaadimu rasul la ni bu ko ko kenn wooweti kon yéen ngeen ni daal sëriñ bi moo jekki-jekki rek ni may xaadimu rasul dee leen ma ko wooyee ma ni gars yi xoolaat leen li ngeen di wax sëriñ Tuubaa du moroom Sëriñ Tuubaa du moroom te man day gis naa ni jamono yii ruur mi jóg di song yoonu murit wi sëriñ bi doy na war doy na war torop torop torop torop torop te lii moom nit ki bu waxee tey mën naa am quelque temps ñu fàtte ko waaye mbind moom ba ba àddina tukki fi lay sax kon lii ngeen bind wax ni naan danañ ko rectifier munu leen koo rectifier lii ngeen bind ci Sëriñ Tuubaa du dëgg dindi leen ko kon maa ngi jéggalu bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu